وارحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال nga bëre nga bëre lay waaw daan ko ñu ne armée ay paa rek lay jël ndax armée dafa bëgg lu yomb ay mm-hmm. paa lay bëreel daan jëw boobu yaa ngi ko doon dégg waaw xam nga tey lu may wax rek borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol bi magasin nga ciy fekk ñun dañ doon rêvé di bëreeg suñu ba tey rêve boobu laa am. mais man rêvé wu ma di bëreeg samay rakk. loolu mooy dellu ginnaaw. fi mu toll boo doon bëreeg say rakk rek benn kàddu bi la ñuy wax. kii moom ba mu dalee bëre ba léegi kenn um xoolal. même fi mu toll rek la toll mais bu nekkee da ngaa def say preuve bëreeg di bëreeg ñi la mag pour pour pour dem ci kaw mais ñi la mag ñan ngay bëreel ñoo xam pour da ngay dem ci kaw. man ñi ma tollool jamono ñi ma bëre loon dool ñëpp dama leen a daan xanaa nag du ma nekk ci benn loo bi bëre fa ay trente combat man xanaa man au ma staff wala bëgguñu dara mais bu ma daanee ñi ma ci war a daan làmb ku mën a daan ñëpp amul da ngay daan ñi ñi daan ñi ñee daan la kase ba àdduna àddunay tukki moo fi nekk liñ naan ku mën nekku fi ku yàlla dimbalee fi nekk waaw yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba daanaka suñ carrière ñu ngi ci mais kontaan nañu trop ndax lim ñu wërsëgale bëri na ñu ko bëgg te mënuñu koo am waaw doon xale nit ñi bëgg la di di la topp di sonn ci aussi ngay dem di def preuve yombul de ñëwuñu bu ñu daanee tey ñu daanu suba di noo di kalankaran yi de dañoo ñëw tegu ci kot di daan di daan di daan di daan yàlla dim yàlla suturaal ñu nag ñu tegale victoire yu bare bari nga jógee ci euh, Mbaye Diouf laa am. jour combat mais ta ñooñu bu ñu nekkee pas kon ñun xanaa ñun bu ñuy bëree kii ay ay ñi nga xam ñoo leen xaw a mag ay màgget la ñu doon. Mm-hmm. mais làmb xam nga loolu la war a bàyyi gis nga ku matal. doo xaar sax CNG di la woo da xam ni man mii mënatuma damay bàyyi. Mm-hmm. mais ñi fi nekk. ñooy daan bu doon paa paa dafay am Tapha Gueye dina ma daan mais wërsëgam jeexagul ci làmb ci làmb la nekk di bëre di ci faj soxlaam keneen noonu noonu keneen noonu tey xanaa nag doo jógee ci Mbaye Diouf tourné ne yaaw laay sama xarit sama sama doom day comme par exemple ma wax la ko rek ah, ah, ah. mais boo fa jógee da ngay xool mm. te benn affaire am na tamit ñu bëri dañuy xaw a bàkkaaru ci lenn dama koy del day taamu day non non promoteur bi yor xaalisam mooy xool combat bi ko neex mu mu ni moom lay tëgg du arme mooy dem jàpp benn mbër ne kii lay bëreel noonoo xanaa kon promoteur yi dañuy ñàkk fula ñoom ñoo naan la kii kii kii nga bëgg kii kii buñ la proposé koo buggul nga leen kii bugguma ko ndax tey doo def nii naan nii loolu amul fenn bu ñu la joxee nag koo bëgg da ngay bëre. Mm. nga jóge Tafa Boy Bambara daan ko jël ambulance bu Thiès. waaw. mu nekk combat boo xamante ni ñu bari dañu doon wax armée tey mu dee ndax am na ñu bari sax dañu doon wax armée nan la fan la mën a jaar jaar euh, nu mu tudd euh, ambulance bu Thiès. waa ñooñu dañ maa dañoo xamul wala dañ maa toppul rek. ñu gis armée ñu indi état de forme. comme li ma la xamu foofu sax li nga doon wax rek day ñëwaat. Mm-hmm. tey boo jëlee àdduna ba àddunay tukki noonu lay demee boo defee ñu ni lee boo defee la la ñu ni lee. Mm-hmm. noonu rek lay demee foofu da ngay dégg waroo a jël kii moo la ëpp doole ma pour pour lan. Mm-hmm. dañoo xë su ma ëppee doole kay damay ñëw humilier ma daan ma. mais combat boobu tax nga jëloon ko. combat boobu. sama staff ñoo ci wax ñu ñu proposé ma ko promoteur bëgg ko ñu laaj ma man leen man bàyyiwuma kenn yéen yéenay xool li ngeen bëgg ngeen ni lii lañ bëgg lii laa bëgg ñoom dem nañ ba xam loolu ci man comme ay nii ak naa nekk fii naan ay damay dem xool ba xam baax na ak yooyu barki Seydina Mouhamed fekkuma ci combat wax nañ ma jël naa. kon doo xool combat. ku ma koy xoolal. di xool bu may ku may xoolal combat na ni ma ba maa la koy xoolal. dinañ si maara yàlla xam nañ damay jël ñëw ne am naa combat. mais doo maara bi ne ko xoolal ma combat bi man ak diw man ak diw. ma ko def. dinaa su ma jëlee combat dinaa dem ñaanlu ñaanlu bi ñaan nu ma amee ndam ñaan nu ma muccee. lépp luñ dara bañ a mën ci man dara mais comme damay taxaw damay non man yooyu nekkuma ci man ku man ñi ñi ma yor xam nañ loolu ci man. Hmm. dem di bëre ji dañoo mboppat ba bëgg dee xanaa léegi la situation xaw a changé ñu ñu resté ci kii bi dañ daan dem euh, da dem fekk ñu la mën fuuf nga dugg seen biir jaayante ñoom doole yàlla suturaal la nga jël ko. Hmm. ma doon xale bu ndaw. ku ma xam ci noonu nga ma xamee ànd naa nit man la ay ati at di mbapat musul fekkee fu ma daanoo barki Seydina Muhammad bëri na sama supporter yu nga xam ni buñ ma gisee ma daanu arène la te fu ne ànd nañ fa fu ne fanaan nañ fa dañ daan bëri ba fajar ñu ñibbisi mais nag mm. <laughs> ku xamul xamul rek suñ bëgg-bëgg la te ñu ngi si Mm-hmm. sa combat ak ambulance ñu gis ni bu rëy nga bëre parce que xam nga yaa ngi ko doon gars yu bari dañ doon armée day taamu armée ay mat lay bëree bëreem demul noonu mais sa combat ak ambulance da nga leneen ñu jox ambulance victoire après nga déposé recours ñu joxe mais combat boobu noonu bëre loolu armée la doon wane. lu yàq sama combat ci di mën naa ni sax combat boobu ak beneen mooy di déglu waxu nit ñi di ñëw. ba indi lu bokkul ci làmb ji làmb ñaara koy def wala samay man samay combat ma koy teg ci yoon mais ñaar sama ñaari combat yoo nga xam ni man maa toog xam ni man mii li ma bëre du yoon. muy sama combat ak ambulance ak combat ak caat. may topp waxu nit ñi ba énervé ci loolu ñëw bëgg a wane kut kut ne kii maa ko mën loolu. ya mun naa ne ñaar yoon sax la ma yaaxal combat ambulance ma man lañ jox victoire ma daan mais waruma ko wër ndomb muy rëcc man non ak lu di xew warul rëcc damay wër ñu ko ëpp doole ndombo duñu rëcc. mais ban bi mooy wër naa ko ndombo di soxor soxor lu bëgg ko humilier. Hmm. wàccagul sax ma commencé di dóor di dóor di dóor di dóor di dóor mais punkal benn loxo da koo téye. man loolu man ku ma ko xool sax naa xam mais maanaam boobu bëggoon naa wane wane li nit ñi di ba xaw a yàq sama làmb ci loolu. nit ñi liñ doon nga a wane li ñuy wax amul mhm. mais waruma ko war ndomb muy ci lu leer laa lay wax ñoom ñoo ñëpp koo ci dégg bu waxalee yàlla tey yàlla rek tax ku ma si jàppandeel mu xam ni kii moo ma ëpp doole. gis ne doole du ngand du rëy nii yore benn poids bi comme li may wax rek poids bu ñu ko bëggee xam na nuñ ni ko nit ñi di amee mais li olof di wax dijj dëgër da koo gën a wóor tol ni guy fu ñu la jëmale nga jëm fa non ñu loolu amul amul sens ci ñun hmm. am yoo xam yàllaa yàlla leen ni bind ñu doon ñoo xam ne ay nit nit ñu nit ñu rëy lañ hmm. mais tey yàkkamtiwuñ suñ dara xale lañ ñi màgg ba léegi. Hmm. waaw. ba jóge ci ambulance armée jël caat parce que ñu ngi doon dégg sax sa combat ak Quench de su ma juumoo mais armée nga jël caat. ngeen hmm. tolloo taay. quoi caat parce que gisoon nañ caat pour mu amoon adversaire sax da c'est tout problème mais combat boo xam te ne moom dégg nañ ko yéen ñaar déggante nañ kii naan daf maa yàgg topp kii naan combat bi maa ko jël sama bopp pourquoi caat. ak caat. du du caution ambulance moo ñu boole wala dara suñ combat doon nañ ko dox dox nañ ko doxati ko avant boobu mu yàqu wala muy taxaw di yàqu wala muy bàyyi di dem jël keneen xam nga après ba benn instant mu d'accord boobu période boobu nag sama làmbu bi may bëreeg caar sama làmbu metti na mm-hmm. metti bi mooy jël avance di xaar di bëre woo ko ah, ba saison bi tëj nga année balance ñëwaat bëgg a bëre bëre ah, ñu jox la kii ba làmb ji tëjaat nga toog presque xamu benn deux ans boo xam bëre ci ku doon bëre. kan boobu noonu la demee boobu fin saison laa waroon a bëre bëriwuma. ba waa ñëwaat ah? de dumbul. boo xam na diggante boobu xaw a yàgg trop. Mhm. far mujj ñu jox ma caat. ma jël ko ñu liggéey ci lu doy waar ci weeru koor gi laaxi liggéey bu méttee méttee méttee méttee buñ ndogoo takk kaas bi boo ko yenn saa yi nii laay téye kaas bi appel bi dugg foo nekk as day as day gaare oto bi taxaw ci bunt bi balaa maa ñëw damay yuuxu ba ma énervé sax ndogu rek laa la wax ay ca ndox ko yaa ngi koy jëndee ji ci mbedd bi ay toog di naan ay yéeg yooyu amul bu demee dañuy dem yéeg dune wàccu contact tourné ñibbisi dem saal nekk saal nekk saal nekk saal presque dañ fay jóge ay quatre heures wala waaw ay trois heures et demi wala quatre heures buñ ñibbisee da ngay reer xëdd moom doo ko def da ngay reer sangu le temps ngay pare sax nga dégg ñu fajar jot nga julli fajar xaar ñu salaatu nga julli suba ay ca continué noonu lañ ko jàppee durant weeru koor bi xam nga ma daj ci coono yu metti ñu teg ma ci coono yu metti aussi mais ku gis combat bi ma ñëw indi état indi fulla indi fayda bëre tamit teg ko ci yoon dem ba ci biir bëgg ko forcer jeexal combat bi te làmb ñaari koy def combat bi bu mu nee kii ba euh, caat day arrière rek su ma doxee ci kam wala dara mu jéem ma sàcc sàcc na mu njëkk na ma jël ba nit ñi teg làmb jeex na ma rëpp teg sama loxo jugaat mm. mm, stratégie boobu la tegoon arrière ma koy dàq te man maa dàqul kenn ku bëgg a bëre day taxaw ñu bëre comme ni nit ñuy bëree mais nekk fii di yaa mën yaa kii may may kii doo laa ba de hmm. maa ko bàyyi hmm. sama lëwal laay teg pour ñëpp toog di xaar naan lëwal naan deuxième. xaar troisième sax dama koy laal. léegi da ngay toog di xaar. maa la lii. boo demee match nul sax jël. moo ñii match nul man moom man moom du ma match nul moom. Hmm. ah astafurlaa. sama làmb moom. bu dee da ngay bëre rek. du ma match nul mais ku ko ci àpp ma àpp ko si mais nekk fii di forcer moom loolu du ma ko defal kenn bàyyi naa loolu de. mais Armé combat ak Thiat am na ñu bari sax dañ na Armé dafa demoon benn instant ba mu doon niis niis bi mooy ba nga ñëwee am na sax ñu doon werante que ni Armé amul doole ndax Thiat ñu ko doon wax ñëpp nee nañ après Thiat moo ëpp doole da gis ay nit naan Thiat moo ëpp doole Armé parce que Armé am na ñoom te ne da nga tuuti da nga tuuti quoi da nga tuuti ci combat xam nga ñu bëri peut-être dañ ma ba tour la ñuy jaawale ak ak ak man rëy du ma nit ku rëy man gudd rëy dugaluma ci làmb wallaay maa ngi fàttaliku sama première année deuxième année bi Bécaye di lim réfé nuñ koy waxee. révélation révélation ah. <laughs> bi muy lim <laughs> révélation yi. Mm-hmm. ba yegg si man daan na armée boo xoolee bàcc seeraas la ma jox bindu bàcc seeraas guddul rëyul mais làmbam day neex kon ñun gudduñu woon musuñoo gudd rëy man ku ma mës a bëreel daanaka suñ tolloowul yaa may ëpp ba sama kombaayu yu ndaw ñi ma bëreel ñëpp ñëpp ñëpp suñ tollowul yaa may ëpp ñoom ëpp ma ak ëpp doole bokkul ëpp maas ak ëpp doole bokkul buñ demee ci entrement duñ du li damay def luñ deful te duñ def lu ma deful buñ jàppantee dinañ xam ni kii nii mu toll doolem ëpp na loolu caat pour man moo ma ëpp doole mais biñ jàppante man xam naa ne man doole ak daan bokkul mën ngaa ëpp nit ki doole fu mu daan la nit mën nga mën na la ëpp doole nga daan ko aussi mais biñ jàppante li tax ma bëggoon a forcer combat bëgguma diggante boobu bëgg ko jeexal dàq ko looloo ma indee indil jiyee. sonn woon hmm. sonn. kay day arrière. kon force bi nag lan moo tax nga forcé. waaw <laughs> yow di nga sonn nga xam da ngaa ngay forcé kooku kay mooy da ngay saraxe sa bopp. mais forcé bi lan moo waral arme forcé. xam naa ni kii maa ëpp koofur. Hmm. te maa ko ëpp doole. wu damaa war a dox ci kawam jeexal ko. ok damaa war a jeexal combat dem fu mu tool danga ko war a jeexal. Hmm. mais doo fa nekk di non bu ma jógee noonu laay bëree man boo ma mënee mu leer man yaa ma ëpp doole dama lay yan komba bi loo teg ma teggi ba ba ma lay mën a daan mais bu ma la mënee damay dox sa kaw daan la waaw daan la mhm. gaynde noo armée nag instant bi dafa commencé dugg ci kii yi rek difficulté yi commencé dugg bien vrai que ni nag say befet bariwul mais armée gars di la di la di la kiiwal de xool armée instant bi fan la mën a defaat pour mën a suqalikuwaat tuuti nga xam mbër mu xew xew day xaw a metti armée yaa sopp comme yi waaw parce que da nga xaw a xewi léegi nga sopp nag. <laughs> benn defet mooy yi kon de xanaa xanaa xaaju mbëri non déglu ma ñi bëre daaw ñëpp xaaj bi xewi na. déglu ma wax la boo daawoon caat mbër sa combat day gën neex gën a yaatu. mais ba tey ñi may war a bëre laa bëre. mais non après da nga sopp ndax sopp bi mooy yow nan ngay fexe fëgg la bëre double moteur. yow nga yaakaar ni yoo double moteur daal fëgëral jeexal na. arba gars yi di xalaatal pour yoon bu nooy nga dem jëri fëgal. xam nga déglu ma ma wax la fëgala sax bokkul fëgala bokkul woon sama yoonu làmb sax. ak ni nga daanu. danga may déglu ma wax la rek. acca ñëwal. keroog maa ngi dégg mu naan man la neex combat bi neex moom double moteur a ko daan double moteur bëgguma bëri moom sax. Hmm. Double Moteur ku mu daan koo xam ne man tey supérieur na ma wala jege na ma sax laay wax moom waaye di moo tax moom xam na ni loolu du combat du woon combat mais donte ko daan na ko tur ba lañ fay bëre rek mais du question ne ko daan dañ ko déedéet turam la ñuy bëree maa bëreeg fëgala la ñuy bëreel moo bëreeg Ama Balde moo bëreeg Nguer moo bëreeg patati patata kon fëgala ñor na suñ doyen la mais benn ah. saison tëj na. ba presque xaaj. benn promoteur contacté wul armée ak ay moroomam laay wax. premier promoteur bi ma contacté mooy prince. sa combat fëgg la laa bëgg la wax. Pape Diagne la ko wax. mu woo sama staff man leen man pare naa nekkuma fa sax naan ay kii ko ñu bëri dañ cee meroon pour ma wax la dëgg. waaw. sama yenn supporters dañ cee mer waroo koo jël nii naa mais tey boo ko jëlul man kenn dundalu ma avance bi may am ci laay dundal sama bopp làmb la ci làmb laa nekk ci laay def def samay besoin amul kenn ku xam ni dangaa mën ci mën chaque weer bu dee nga jox ma junni junni laa la wax de chaque weer rek bu dee ngeen ma kaay jëlal junni bi damay entraîner ji léegi damay entre na jëmale kañ fii mbëri année balance gënuma leen dàquma leen a bëre bu yàlla dogalee ñu jox ma combat léegi lu ma fi nekk naan ay néeg naa ñu bëri dañuy réer mbir leen man combat bu promoteur bi ñëw bëgg staff bi ñooy bañ ak ñooy bañ ñooy bëgg mais du man du man yenn saa yi nag ma xool xam ni kat kii nii du sama yoonu làmb parce que apporter lu ma dara man leen lii du làmb nañ xool ku ko ku ko gën a kawe. Mm. man noonu laay bëree. Mm. kon Feugeula daal sama juum may ñi mu bëree ñoo tax nga bëgg a bëree moom daal rafet waaw kay mais du question ne ay tey kii ki ko daan bëgguma ko barki Serigne Touba bi mu ko daanee bu ñëwoon du bëgg a bëreeg man du ma bëreeg waaw bi mu ko daanee ba pare bëggoon a bëreeg man du ma bëreeg moom. Mm. dafay daanu dafay du question du mbër wala dara déedéet. mais man. sama jëm bopp li ma daj daju ko. yaa gën a bëri ñoo ko ñu xotteeku daal nga bëri. waaw yow dafa yem. ok lool lool lool lool lool loolu du débat xam nga tey. Mm-hmm. ci ki ma war a bëreel laay wax sax. mais fëgg mais tamit waaw mais maanaam moom moom na def loolu ci boppam te moom def nañ direct ma wax ko loolu ma expliqué ko loolu. Mm-hmm. waaw. la kon Armé mi baax. waaw maa ngi koy waaj moom laa am maa ngi koy waaj. Mm-hmm. maa ngi koy waaj. daf mel da xaw a négligé Feugeuleu quoi da ngaa yaakaar mag la ba. négligé. fii ku mag bàyyi. Hmm. ku magal. Hmm. bàyyi ku mën a tut bàyyi. Hmm. maa la wax li noo gisee làmb gars làmb tee na ne làmb promoteur yee ko yàq ñu ne yéen bëri yéen a ko yàq lan gisee làmb. làmb communication bi moo ko yàq. comme na bu ñëpp toppee day yàqu day yàqu day yàqu day yàqu waaye bu yàggee bu narul woon yàqu sax day yàqu deena deena deena deena waaye bu narul woon a dee day dee xoolal li ma la wax na bu baax imaginel ba nan ah làmb ngi jëm ci kanam ñu ngi def ay innovation ku nekk day ñëw bëgg a wane lu sa moroom wanewul woon gars yi di xëccoo di def promoteur yi aussi seen façon joob ni ma déggee ñu fekkeewu ma ko ni ma déggee noonu la ñu joobee ci ñi gën a yàq ci lañ bokk ñoom tamit aussi mais fekk mbër mu nga xam ne tey moo lii la war a fayoo sa kii sa nawle tëggu ko mais mbër yi duñ jeex jëlal keneen ngir yàlla bu ci bu jógee ci ko xaw nga jëlaat ko mais ngay ñëw di xëccoog moom fay ko duubul bi kee ñëw ne kii damay jaay doole fay tribul bi fay ba fay loo amul ba bor fekk la ci mu leeral la kii yëggut foofu mënul indi loolu nga fay ko lu nga xam ne tey yow mënula koo indil mais nga daanu pare noonu mu dafa yàqu yaa yàq làmb def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw sam père seen Modou <laughs> naw naa ko de ak ñi mel ni moom waa damay jël ci moom référence rek mm-hmm. musuma dégg mu dugg ci lu mënut wala di jooytu mm. déedéet moom bu amul benn sponsor day tëgg lim mën lay def. te mu ngi neexal làmb mu ngi dimbali boo yu bëri mu ngi génnee ñu baree baree bare mm-hmm. bien vrai que musuma tëgg. Mm-hmm. mais mu ngi génnee ñu baree baree mm-hmm. bari. ñu ñu bëri bu ñu doon def noonu làmb dina gën a am beneen jéego. mais fekk kii waxaale na armée kee jaar suuf dama koy tëgg kële jaar suuf loolu moo xaw a sooxee làmb tuuti. ak topp sponsor yi daw nañ daw nañ comme li ma la doon wax rek mooy ñëwaat foofu. waaw mais man nan laa yore sama produit dégg ñi ñi yor seen produit bëgg mu doxee fii ñëpp daw nañ ma fay jëm duma fa dem waaye yow loolu rek la ñuy demee duma fa dem nañ bàyyi baat yooyu nañ bàyyi baat yooyu xool lu mën a jógal làmb ñu ci dox mais làmb neexul neexul bi mu mu ngi feeñ de. Mm-hmm. Mm-hmm. arbitre ak CNG noo ko gisee gis ngeen arbitre yi lu ñuy kaas rajee nañ euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Sitor Malick Ngom Sankam ak ñeneen ak ñeneen ñu gis ni yeneen arbitre bu fi indi. Mhm. noo gisee arbitre ak CNG. waaw arbitre ak CNG man pour man euh, arbitre yi ñoom ñooy comme ci membre CNG yi lañ bokk. Mhm. mais man li ma xamoon ci foofu bariwul ndax man damay gis daanaka buñ daggee mbër arbitre tax buñ ajee mbër arbitre moo tax xam nga mhm. pour man ñoom ñooy ñoom ñoo ñoom ñooy CNG bi mais ndekete loo gëstu rek doo ko xam am na leneen lu nekk ci ginnaaw ñu nga xam ni ñoom ñoo tax ñu naan CNG mhm. arbitre yi dañ leen jël benn instant tamit li ma ci metti mooy man personnellement laa li ma metti xeeb naa liñ leen di fay trop. xeeb naa ko trop. ndax dama ko xeeb dix mille francs ci punkal mu yor kër war a paas aller retour. man bu doon man la man damay xeex nañ ma yokkal laay wax. mais ñoom ndeysaan xeexuñu sax nañ leen yokk nañ leen assuré mais nañ leen assuré te ñaan yàlla bu leen dara dal mais loolu mooy yoon sax mbër ñu ngi assuré mbër yi yaakaar naa assuré promoteur promoteur bu dagg assurance. su ma juumul loolu xaw ma ci dara. waaw ah, assuré promoteur promoteur bi. Mhm. mais arbitre bi pour ko assuré ma. loolu de nag wax dëgg yàlla jarul xuloo jarul xeex. Mhm. ko kenn waru ko a yëg liñ leen di fay moom man dama ko xeeba xeeba xeeba xeeb non ay muñkat dëgg lañu vraiment loolu moom ñi ngànk làmb nañ ko xoolaat nit bu nekkee ak yow ay at ay année man euh, arbit yu bari dama daan toog di leen seetaan ba dugg ci làmb ñëw fekk leen ci làmb dama ñëw nii stade wàcc boo gis leen nii ne ni kii laa doon seetaan xam nga. waa affaire boobu daf ma waa daan leen seetaan ci événement yu mag. toog ci kanamu télé bi di seetaan. ñëw ban lay arbiteel loolu ñooñu. waaw loolu vraiment liggéeyal liggéeyal nañ làmb. waaw donte ka nag ñooy ñooy dagg mbër yi. des fois ñooy def yi nga xam mooy naqari mbër yi. moom lu naqari mbër ci moom lay jóge ñooy def li tax ñuy dagg mbëri arbitre ngay bëre bëri bëri bay bëgg a dee ñu taf la palaake nga résister wane sa doole sa njàmbaar def deux pas sa tànk laal saako bu ñu dóor la avertissement lu ma gën a metti ci àdduna lool la ah, ah, mais pourquoi mbër ñu ñu ñu ñu non waxuma la man damay toog sax di seetaan gis ñu def ko mbër mu metti ma xam nga kan nga war a avertise mm. jox avertissement ki nga xam ni dañ ni ko jubeet mu ni wëqet daw génn wala ki nga xam da nga koy jàpp muy xëccut génn mais ki nga dóor palaaka mu wane résistance am wane fulaam ak faydaam nga dagg ko nga loolu loolu day dammu moral sax loolu day dammu moral. Armé. Mhm. te su ma ne laa. Mhm. Modou Lo. Modou Lo. Balla Gaye. ak Lac de Guiers de ñooñu ànd ci kan lay gis boppam. ñooñu maanaam kan lay gis boppam. te bu ñuy bëre. tey ku hmm. ci bëre rek Armé sentir nañu tey kii li nekk ci moom man Armé nekk na ci man. waaw man moom vraiment damay bëgg di bëre comme Balla Gaye ni muy bëree. Hmm. Hmm. bu jàppee rek. day jeexal. day wane li nekk ci moom bu jàpp ñeneen ñi donte que waxuma duñ jeexal dañuy bëre. Mm-hmm. mais ni muy bëree man moo ma gën a neex. Balla Gaye de. waaw kon yaa ngi ciy gis sa bopp. Mm-hmm. Ama Baldé ci kan ngay gis sa bopp. gis sa bopp comme. tey ñoom ay jeunes lañ. Mm. ay xale lañ par rapport ak ñi. Mm-hmm. tey Boy Niang wala Ama Baldé ci kan ngay gis sa bopp boo seetoo gis na kii man la. non Boy Niang. ndax la. dañoo xaw a bokk ay xeetu bëre. ñaar. ci ban xeetu bëre comme nan. waaw ah, dañuy bëre loxo en ah. même temps dañuy bëre tànk. ok bëre comme ay caxabal di genre. Mm. yooyu am mbër yu bëri ñoo xam ne donte ko bu mën nañ ko wala déedéet xaw ma. Mm-hmm. mais duñ ko bëre. Mm-hmm. man ñu bëri dañoo yaakaar ne caxabal rek laa mën. Mm-hmm. te yàlla ni bokk na ci lu ma xam dama ko doon jàng maanaam jàng moo ma yóbbee sax ma ko ma ma si doon daan noonu. ngi commencé caxabalee ci Boy Niang Dolf. bi mu ko jëlee ma gis affaire bi rafet. ma kuma man man noonu laay def man du ma ñëwee gis nit bëre dara. Mm. damay dem su ma demee entraînement. Mm. jour boobu force loolu laay bëre. waaw man dama mbër yi mën bëre yëpp daanaka dañ may neex. ok mais da ngay damay damay copier man damay xool mbër mu bëre lii. Mm. ma dem ne lii laay bëre wala ki may bëreel sax ci contact bi. man la nii kii defoon kii laa lay def. ma jéem ko réussite mm. su jàllul ma xool xool ba ba mën ko mm. te mm. noonu laay bëree man lan ngeen dogoo tey man ndog bu oyof rek mburu ak kii yu ndaw rek mën na nekk sax sokolaa ah. waaw ndogu oyof yooyu rek ay yooyu xam man moom dama bëgg chocolat <laughs> l'émission tire waaw di tàggu ñépp di leen wax comme ni ma ko waxee woon rek di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. ñépp ñëpp kulluhum di ñaanal sama wayjur wu jigéen sama jur wu góor ak mboolem jur bu tëdd barsàq mm-hmm. yàlla xare leen àjjana yeesal njéggal ci ñoom ci darajay sahru ramadaan di baalu àq ñépp waat di wax ni lu ma fi wax lu dëng ci ci man la lu fi jub yàlla la neex ndax wax mu yegg sax ci yàlla la di sant ñëpp nag ñëpp képp ku nga xam ne da ngay bëgg Armé maa ngi lay sant bu baax a baax surtout sama grand Modou Kane mm. di sant sama gaay yëpp mafia bi waa mafia maa ngi leen di béggee ñoom daa xam nga Talla Diop su ma waxee mafia bi ñoom xam nañ mbër yi ci nekk yëpp maa ngi leen di béggee di nuyu sama kër si hmm? mel ni ñoom perfet alaaj jiree jaata Matar Sano xam nga di nuyu ñi may àndal ñëpp ku luxu bàyyiwuma kenn di nuyu samay xarit Zongale Ahmed ah sama xarit ay ñoom Ifra sama grand Gana Kebe di sant bu baax nag sant laa bu baax a baax a baax. père Ali Ndiaye sama père sama xarit sama tooma sama lépp bëgguma lool di ma jàppale lool tamit aussi seetaanuma benn yoon. waa di sant sama mag yu jigéen yépp sama mag yu góor yi sama doomu ndey waa surtout nag. su Fatma Dia jëlamal yi su waa dëkk waa mbay la nduur waa lugaloo waa bawol ñëpp maa ngi leen di sant waa bay la gis naa niñ may jàppale maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla nañ yàlla defal jàmm te yàlla nangul ñu suñu koor woor ba ngoon yàlla nangu ko musiba la mm. yàlla nangul suñu koor nangul suñuy jàmm yàlla jéggal ñu suñuy rëcc rëcc yal nañu yàlla sàmm aar ñu comme nu mu sàmmee woon Kaaba ga waa kon asalaamaaleykum wa rahmatullah di ko bëggewaat bu baax a baax moom aar bu benn barak mu nekk koo xamante ne suma xarit la suma lépp la wax dëgg yàlla di ko ñaanal bu baax a baax ndax amaana heure bu ma ko soxlaa émission rek du ma ko tàggu dama koy wax na ko soxla naa lii nag mu ne ma amul problème di ko ñaan rek moo xam ne mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed mu mu dem ba yàlla def ko champion bu mag a mag a mag a fi ñoom ah, Balla Gaye toll fi ñoom Modou tey am naa ci moom yaakaar di ko wax roi des arènes ci kàttan yàlla kon li muy wax rek yàlla na ko yàlla jox ci barki sëñ Babacar si ci barki ah, Mawlaaya wax dëgg yàlla nekk ku baax daal wax dëgg yàlla ah, leen rek moom may daf ma sonal quoi daf ma laqal loolu rek mooy problème bi Basirou Diouf séeréer bu naagis di bëggee waat bu baax a baax dama koy wax rek l'infatigable yow su ma ne laa acca rek nga ne acca yàlla na sa jaam yàgg di bëggee wat nag ñi nga xam te ñoom ñooñu si wasi wasaare lamb wasaare TV wax dëgg yàlla lépp loolu bëgg dañ koy def xam nañu sonn nañ lool ak koor gi daal mais daal yàlla mi am fay yàlla neen yàlla fay مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال